Chers amis fidèles internautes, euh, vous qui avez choisi le site des grands événements VIP People TV, informé juste c'est vrai vous pouvez abonné ba bu faté cloche de notification bi ngir jot vidéo comme nuñ koy défé sa su ne fi réew mi tollu néna len fi réew mi tollu dañ koy su képp xam ci réew mi dañ lay ngir nga ak askan bi sa xalaat position ak sa analyse liko waral parce que askan bi ñi sétane dañ leen wara leen ñi nga dañ ci langue ji ñi nga ci ñi nga seen xam-xam daf ci plaisir plaisir ak mbégte dalalaat ko laay wax ndaxte kër gi këram la saa ñu gisee di ko war na wax rek dañ koy invité ci plateau mu toog fi du kenn ku dul président mouvement Fulla ak Fayda ñu nee Fulla ak Fayda yaakaar naa ni foofu la doomu aadama soxe ko ndaxte doomu aadama nee nañu juddu bu rëy ndey ak baay mais Fulla ak Fayda boromam kon donc kooku su nee partem Fulla ak Fayda la ko tuddee yaakaar naa ni képp kuy jeune képp kuy sénégale donc da nga war a am Fulla ak Fayda ci sa bopp ba lépp looy def ñu fekk la ci ci Fulla fekk la ci Fayda Youssou Ndour na ko nee sax soo koy jaay nga am ci fulla fayda pour mën ci tabax immeuble moo tax tey dañuy am mbégte ak bànneex dalal kii nga xamante ni Abdoulaye Mamadou Guissé l'homme culturel l'homme politique l'homme qui est né dans la vie culturelle l'homme qui est aussi dans le champ politique du Sénégal Abdoulaye Mamadou Guissé ñu ngi lay dalal ak jàmm ci fi réew mi toll euh, ce temps, vraiment euh, je suis sax ému laa mën wax di la sant di gërëm le je suis ému de la présentation di wax nous aussi Euh, VI People c'est la chaîne des grands événements te loolu dam ci am firnde ndax euh, jaar naa télé yu bëri jaar naa site internet yu bëri waaye defe naa bi ma jaaree ci yow la ma àdduna bi gën a xam donc loolu mooy firndeel ni euh, que yow xam nga tubaab dañ naan Dieu Dieu est grand mais comme ñu ne temps temps n'est pas petit. yàlla baax dañ koy wax. donc pour wane ne rek yow aussi kilifa nga fi nga nag sa domaine spécialiste nga euh, tey journal euh, rubrique people yaa ko njëkk a euh, imposé Sénégal yi parce que bu yàgg ba dañu foog ne woon maanaam tabu la mais nga fexe ba ancré ko si culture médiatique bi donc nga am maam am ci yow respect boo xam ne aussi parce que nit ku dëggu nga partagé nit ku dëggu nga nit koo xam ne la ku am fulla ak fayda nga maanaam ku la seen ngay dem dina gis tange mi si fulla ak fayda rek lay dox te kenn yabu la bokk aussi presse bi nga xam ne euh, benn waaye jóge fële leb benn neuf millions wala dix milliards am di leen sexal chaque jour la yónnee wéef ay di ay cinq cinquante mille cent mille lu bu ñu nekkee plateau sax ñu xeex ak yow sax ndax cinquante mille wala wala cent mille yi ñu leen di may yow yàlla dimbali na ci loolu mais aussi sa deret la deretu deretu xalpulaar xeratu làkkat nga donc sa origine entre parenthèses pulaar et soninke mais munoo nekk leneen lu dul loolu. mooy li may wax si Macky Sall rek. Mhm. Macky Sall garabu mango mango lay jur tange. waaw dëgg la dëgg am déet garabu Haalpulaar munul def su dul yëfu Haalpulaar. kese noblesse dignité. Mhm. donc di la remercier si invitation plateau bi di invité di remercier sama xarit Ablaye Fall. président naataange askan bi nga xam ne moom laa àndal tey fii mu gunge ma si pour xamaale VIP People. moom xam naa moom sax xam naa dinañ ko dalal fii. voilà <laughs> comme mooy président naataange te réew mi soxla ndegam pétrole beeg gaz bi mi ngi war a comme ni ma leen ko waxee fi réew mi toll la su ma nee fi réew mi toll réew mi moo toll fii actuellement jamono jii ñuy waxee donte am casquette culture am casquette politique dinañu waxtaan ci ñaar yëpp waaye bi ñuy njëkkee maay politique tey Abdoulaye Mamadou Guissé gis nañu benn combat amoon Sénégal de 2019 en 2023 ben combat moo amoon ci atmosphère politique Sénégal muy lan non au troisième mandat mm-hmm.

Mm-hmm. muy déclaration boo xamante dafa marqué l'histoire politique du Sénégal mm-hmm. mu marqué l'histoire politique africaine mm-hmm. mu marqué l'histoire de la démocratie en pensant par le Sénégal ci ce discours il mu soir, siwaat ci kàddu yu mu indi en 2016 bi muy teg référendum bi mu dellu siwaat ci livre bu mu bindoon en 2017 mu dellu si waat ci cadre yi mu yëkkati woon ci campagne électorale bi mu pour ñu jox ko 2019, mille dix-neuf. mu c'est sama dernier mandat. donté conseil constitutionnel beaucoup ci won bolé bu juroom ñaaral bi mais moom fexena na bolé ko ci. donc mu discours bobu bi Macky Sall défé discours ban réaction gam en tant que président mouvement Foulak Fayda en tant qu'un homme politique. Tange man Macky euh, surprise bi sénégalais yi am ci Macky man surprendre euh, parce que il y a dafa am bindkat de wax nan votre surprise ne me surprend pas. maanaam sénégalais yi dafa am nu ñuy doon xoolee Macky te Macky sàll boobu ñu doon gis du boobu maanaam dafa mel ni nga takk ver verre yi tilim yow lépp loo gis day tilim ok noonu la sénégalais yi mel te loolu lu ko indi rek leen la mooy dafa am classe politique boo xam ne classe bu malhonnête la manipulatrice classe politique boo xam ne du ay wax ay waxatu dëgg nekk ñu si ay ragal ñoo fa nekk tey soo gisee sax Sonko imposé wu si ñoom parce que ñoom Sonko leen ëpp fit mais classe politique bo xamné nañu genre euh, prêt à porter facile à transporter la ñu. <laughs> donc frire bi jóge rek dañ nane fofu la mais courage amuñu ko. Mhm. te courage bobu ñu amoon nak mom la Macky am. Mhm. Macky Sall il est courageux dans ses dires en 2018, mille euh, euh, mhm. dañu mës tajé méridien président. ma ngi andalon ku ñu wax Ibrahima Nguett. il est de la mouvance présidentielle man ak moom ak Nguett ñu tok man jour boobu laa dégg mu ne ñëpp ma tok nget toog waa ji mu ne su deuxième mandat bi je laisse damay bàyyi pour pour pour cette génération ngén dawal. su bobu la njëkk dégg loolu mo wax ko. Mm-hmm. kon bok jàppale len ma am deuxième mandat. Mm-hmm. en tant que famille libérale. Mm-hmm. donc euh, mais acte bi mu def le 3 juillet bi Tange bind naa j'ai dit que Macky en renonçant à la troisième candidature Macky Sall a dépassé Senghor Abdou Diouf et Ablaye Il mhm. daf leen dépassé. parce que dépassement n'est pas si priorité, mais amélioration dans la qualité. c'est-à-dire que Macky Sall tey on euh, ñuy wax véritable père de la nation sénégalaise. c'est mhm. Macky Sall. xam nga moom boobu dañ ko doon wax on non waruñu ko tuddee président. Mhm. mais moom dañ ko ko war a deuxièmement il amuñu a envié, envier Afrique du Sud. C'est mhm. Nelson Mandela. on n'a rien envie à l'Afrique du Sud. Ouais. base Macky a jeté les bases d'une nouvelle génération de dignité d'honneur nga xam ne tey aspiré ku ku yore sax ndomb tànk ci réew sax war boo fait sax nga parce que jox donné la leçon mhm. mais nag bi Macky Sall modèle un monument une référence un repère mais non, la Sénégalais Sénégal un monstre qui s'appelle Ousmane Sonko un monstre qui tue boo xam ne il vit du sang de la de la jeunesse une jeunesse qui qui se vide de son sang neuf tey boo xoolee beaucoup de ci li nga président lu ko gën a metti mooy tey su ko neexoon def am droit constitutionnel def ko. Mhm. def troisième mandat. Mhm. mais mais est-ce que troisième mandat ak ak xale bakkanu xale innocent yi dem. Mhm. ban moo la gënal. d'accord mais mais nga renoncé troisième mandat. Et il a fait alors que qu'est par contre kee moom euh, nekk candidat bu yóbboo Sénégal yëpp dee moom mu candidat da koy def. kon euh, Sénégal dañoo war a xoolaat seen bopp war a tey la tey dimension Macky Sall tey la gën a jóge ci kaw te tey la tey la gën a yëkkatiku. Mhm. donc discours bi li ma ciy rek classe politique aussi dañu xam ne euh, opposer opposition ne signifie pas se ranger derrière un opposant nihiliste manipulateur menteur.

Macky Sall amoon na sañ-sañu présenter beneen mandat. en 2024 parce que constitution moo ko. may na ko may na ko suñu sukkandikoo ci référendum bi mais dañuy gis combat bi baré lool. en 2019 ñu def ko arme de guerre. Mm. mais Macky Sall aussi djégo yu mu wonon Sénégalais 2019 ba 2024 ñëpp japp nañu ki kat dafa am fas yéene sampaat ndëndam. Mm. ci walu investissement gis nañ ko. Mm. bi ci mujj moy nga dajalé cinq cent quarante quatre maires ci six cent ñoom ñëpp nee nañu yow yaa ñu doy dañu bëgg nga ñëwaat pour eggali beneen mandat bi bi yoon may ci biir loolu mu taxaw tontu leen ni que maire bu ci nekk da nga aar sa askan dafa mel ni mi ngi leen doon dànkaafu pour en cas su waxee mandaam ku jóg pour bëgg a xeex yow nga gérer sa quartier mm. tey mu ñëw bett leen mm. <laughs> est-ce que tey Macky Sall nekkul de jàngal la classe politique c'est quoi la politique c'est quoi la diplomatie c'est quoi on gère une société exactement parce que quand on dit la politique c'est l'art de gérer la société mm-hmm. est-ce que tu Macky Sall du de jàngal les politiciens qui étaient là parce que euh, tant je suis très content xam nga loolu aussi niveau Il y a un niveau extraordinaire te loolu man vraiment bettuma quoi parce que nit avons envie d'aller plus loin yàlla dalay yóbbu plus loin

te moom li ko gën a ñor Sénégal liggéey la mu nga ci conviction républicaine di wax ne moom liggéeyee ko ñor jëmale Sénégal kanam stabilité Sénégal émergence Sénégal économie Sénégal classe yi nga xam ne ñoo gën a fragile jigéen ñi nga xam ne dañoo am ay doom te amuñu jëkkër euh, jigéen ñi nga góor ñi nga xam ne dañoo re ay famille yu doom yu bëri te amuñu liggéey nan laay def man Macky sàll ba jàppale leen àll bi nan laa koy def ba électrifier ko wax bi loolu yëpp kii ci conviction républicaine mais dafa ne loolu yëpp jàmm ko sous-tendre te jàmm jooju man Macky Sall bu dee day dem ba Chine ut ko dama koy damay dem uti ko donc moo tax euh, comme li nga wax sànq conviction républicaine wax na loolu mais aussi le Sénégal au cœur mooy beneen livre bi uh-huh. le le Sénégal au cœur tey même bu dajale woon cinq 500 cinq cent con euh, maire Sénégal cinq cent maire yëpp ne ko yow la ñu bëgg nga nekk candidat. mais livre boobu le Sénégal au cœur wax na ko nee na moom Sénégal la am ci xolom su àdduna bi yëpp dajaloon di ko defuloo loo xam ne jëmalewul Sénégal kanam du ko def. d'accord kon loolu preuve la woon. Mm-hmm. maanaam da doon won ne. Mm-hmm. aussi un homme d'état mm-hmm. doo du du du du du lu ne rël rek nga nga ànd ci. comme sax lu ñu bëgg. nga dem ci waaw wala bi laa foule. xam nga laa foule tey ñooy nax ñu bëri. Il y a des gens qui dañu toog seen kër Sénégal ne ñoom nekk Sénégal ndax gis nañu benn foule qui sont hmm. wala buy ñi wala parce que nombre personnes mais Macky a montré que foule et le hmm. nombre de personnes conviction d'accord te conviction républicaine hmm. am le Sénégal au cœur man ma ci dans le sang et aux origines dans le parce que origine et aux origines Macky origine Macky Sall. origine Halpulaar. temps yow du ma la wax loolu. Ah, tey waaw mais distinction origine Halpulaar. ah origine góor da ngay da ngay judd doon góor rek. non mais Halpulaar bokkul. Hmm. Halpulaar tey ethnie yu bari boo xoolee ak Halpulaar bokkul. gis nga Halpulaar soo ko doon rey waxam. Hmm. lu ma la wax ren déwén loola la wax. beneen déwén loola la wax. yow namp nga dara nàmp nga kii Halpulaar. tey am na yow position boo xam ne bi nga nekk nii man je sais ne tey nit ñëw na jël ay millions ne la kaay nga bàyyi lii ngay def te nga ànd ak Sonko nga bañ. <laughs> waaw dëgg la ànd ak Sonko de ànd ak Sonko de moo gën a yomb jamono ji. waaw parce que xaalis lañ lay jox yow am nga sa <laughs> kenn du la saaga kenn du la mais da nga bañ. mais Sénégal moo ñu. da nga parce que sa origine la. dëgg man origine dama ko fonk. te origine boobu moo tax. ma sol sama daal dugg sa tele parce que je me dis que nit ñi wute nañu. am na ñoo xam ne nag tey dama lay jox exemple te y a des acteurs yoo xam ne Macky Sall jox na jox leen ay milliards defar leen lu ne mais tey bi dëkk bi tàngee dañoo dem Chine wala Japon tëdd foofu. faale wuñu euh, dëkk bi tàkk seen yoon newu ci. au pire sax am na ñoo xam ne dañ naan waa Macky bàyyi Sénégalais yi ngay rey mhm. te alors que Macky musul rey kenn. kii rey mu ngi kër góor gi toog. Mhm. su tàngee mu dem euh, Ziguinchor toog fa. te waa Ziguinchor ñaata at lañ ko gëj a gis moom. te bu bu jaaxlee ba jaaxle mbubboo mbubboo affaire Casamance Afrique sud sudiste te alors que sudiste yi sax faale wuñ ko parce que moom véritable sudiste yàlla na yàlla baal du véritable sudiste ah on se doute de ses origines moom.